affaire la wax nañ leen tamit bu leen fàtte ne leen lañ Pape Souleymane Cissé le général Pape Souleymane Cissé mom mo ray ñom Fallou Sen. Fallou Sen Pape Souleymane Cissé moko ray. gis na bayam ndeysaan Abdoulaye Sen di réclamer justice Pape Souleymane Cissé lañ affecté won Saint-Louis mo tiire balle tëll Fallou Sen moko ray. voilà domaine agricole communautaire moom la les CADAC dinañ ci ñew lolu lolu benen spécial bu bëgg ma dugg carrément donc maintenant Pape Souleymane Cissé yow kilifa gi di Abdoulaye Sène di baayu Fallou Sène néna le la Pape souleyman Cissé mo rey sa le général Pape souleyman Cissé n'est et camp wu Macky Sall doon iril Macky sàll ki nga xam ni moom mooy yaa awa jéey Pape Souleymane Cissé bi takk ñeesu Marème fay sàll ca Saint-Louis ñaareel moo rey sa doom moo ko tiire balu fetal ba ko reyee ci lañ ko récupérer indiwaat ko ci seen ci palais ba ba ko reyee ci lañ ko récupérer waat indiwaat ko ci palais ba yow Abdoulaye seen baayu Fallou Sène Marème Faye Sall yónnee na sa kër xaalis yónnee na sa kër ciment yónnee na sa kër fer yónnee na sa kër xeer pour ñu tabaxaat sa kër mais Marème fay Sall est-ce que dafa rey sa doom Marème Faye Sall Marème Faye Sall du président Marème Faye Sall du ministre pourquoi Marème Faye Sall yow sa kër gi nga xam ne yow ñoom ñoom Fallou seen mu nga dëkk entre euh, lu mu tudd si euh, entre xombol euh, ak euh, nu tëdd côté Diourbel noonu fa la dëkk xombal ak euh, beneen dëkk bi waaye foofu la dëkki mais Marème Faye Sall moom moo yónnee xaalis seen kër kër Abdoulaye seen mii pour kër mooy kër ñoom Fallou seen pour ñu tabax ko Marème Faye Sall ko yónnee Marème Faye Sall rayul rayaanut ba jëkkëram rayul lan moo tax mu jël alal di ko yóbbu ci kër ga pour ñu tabax ko kër ga tabax nañ ko de Marème Faye Sall jënd suuf sa moo yónnee xaalis ba suuf sa waaw entre Bambey exactement entre xombal ak Bambey Bambey la foog naa je pense Bambey ma Faye Sall moo tabax kër ga dem leen xool kër ga <laughs> madame moo yónnee suuf sa ak ah, sa entre xombalee Bambey madame Faye Sall moo yónnee suuf sa moo yónnee ciment ba moom moo tabax kër ga léegi nag. ki ray sa dom muy Pape souleyman Cissé mais mo tak ñeesu Marème Faye Sall di wa Saint-Louis <laughs> donc hmm? ya karna ni loolu mom ñu affecté won ko Saint-Louis mu ray fa Fallou sen tiire ko bal alors <laughs> c'est clair à eh, eh, Patar exactement à Patar hein <laughs> voilà léegi Abdoulaye Sène won nañ la affaire yi demal Papa Souleymane Cissé moo tiire moo tiire fetal bi kooku moom voilà quoi euh, parce que xam Sénégal moom ndeysaan boy wax ni naan ñepp xamanté ñepp xamanté euh je pense que il faut ñu dimbale sénégalais yi gis nga fi man pour man doomu adama bu démé bay référé wu ci yeneen jigéen sa yaay baaxut déglu ma de man Sénégal du ma ci benn jigéen ndax man gëm naa ni jigéen sàkku jigéen jurul doom ju gën sama ndey man du ma référé ci beneen jigéen képp kuy référé wu ci jigéen yi ngay gis ci internet beeg ci télé beeg yooyu mais sa yaay baaxut sa yaay bu baaxoon mat référence doo dem di référé ci yeneen jigéen ñu ngay gis Sénégal ay référé ci ay ay ay Yaawe Jeey ci ay Astu Sall ci ay ñoo xam ni ay ay fii de de mœurs légères ay fii yoo xam ni doomu aadama bu baax du leen jur ay fii yoo xam ni du ci saayir du ci baatin lañ baaxee du ci diine islam du ci christianisme du ci dara lañ baaxee du ci dara njaaloo prostitution déguisée créé seen yaram yi Euh, foo leen fekk ña ngay dugal ay wee ña ngay émaayu ña baaxuñu ci dara baaxuñu ci dara mais bu la nit di référé mais c'est parce que sa yaay baaxut bu sa yaay matoon liggéeyam bu sa yaay matoon kon doo référé wu ci Astou Sall kon doo référé wu ci euh, yaa Awa Dieye mais seen yaay yi ñoo liggéeyut moo tax seen kër yi gisuñu fa lu baax ñu di xooli télé ba pour référé wu foofu def def ay référence ci référé ci ay caga yoo xam ni de mœurs légères yoo xam ni baaxuñu bàyyi ci kër baaxuñu bàyyi ci àll mais yu mel noonu boo gisee da nga leen di ñaanal xam ni nag seen yaay waroon na baax baaxut lool moo tax képp kuy référé ci biti moo képp koy wëri dara ci biti amoo ko boo amoon dara doo ko wëri donc bu sa yaay baaxoon doo référé ci ñii <laughs> loolu la moo tax ñooñu dañuy jara ñaanal mais nag ay doomu aadama yoo xam ne la malheureusement comme li ñuy waxee ay dégâts collatéraux la yo xamni ne sen dossier mais intéressé wuñ ma la ci waroon wax wax nako té tamit gaay yi dañuy ñëw di ñaan Astou Sall aussi la famille euh Ndiade ñaan nañ ma la famille Ndiade nee naa leen sax Astou Sall dégâts collatéraux la won quoi ñaan nañ ma xam nga bon Astou Sall ñom ñoo jàkkaarlu benn kër ah, euh voilà. xam nga gars yi bu ñu ñëwee jàpp ci Astou Sall xam nga ay doomu baayam kii ñoom amuñu woon dara dañoo sonnoon amuñu woon luñ lekk amuñu woon luñ naan si yaayam lii loolu moo tax Astou Sall Astou sax melul nii daa xeesal daa xeesoon tuuti rek mais daa xeesal li nga gis yëpp du astu Sall Astou Sall daa xeesal ba weex tàll sonn moo taxoon kër guñ liggéey woon nekkoon fële ca euh, nu ngeen koy woowee sax côté. fu wetu nestale en face Nestlé donc côté boobu la la la dëkkoon moom ak sëram yaayam amul xam nga après ñoom dañoo dem sax moo loolu moo leen yóbbu Pikine ñu dem Pikine euh, euh, seen kër maam seen seen kër maam doon donn fa nekk fa mu sonn lool donc il fallait Astou Sall jaay taatam en fait Astou Sall situation moo waral mu jaay taatam xeesal ba weex tal def chirurgie kurti kurti loolu ñu ni mis mais mais quand on m'a expliqué réellement man dossier bi yoron nako mais quand on m'a expliqué réellement pour ma def yermandé ci ndaw si après dama daw bay mu sedd parce que bo gisé mu jaay tatam parce que amul lu mu lek bay yaayam yoru lu mu lek ay sëram té ben frère lañ am jamm gën jak saw fofu la su sall juddo jamm gën jak saw bu mu jógee jamm gën jak saw lan mo len yobbu pikin pikin syndicat asu sali sen fami yëpp ay jigéen lañ côté yaayam ay jigen benn góor lañ am mais la famille njàddeem ñaan nañ ma nag ñaan nañ ma lool te maire bi pass nañ ma sax maire bi instant yi mi ngi Amérique famille Abdul Ndiade sama sama doa ndey la maire bi ñaan na ma ba yaram bi daw na ma ngir yàlla dimbale ñu lillahi wa rasuli nga jàpp ci ngir yàlla dimbale ma lillahi wa rasuli Mouhamed dimbale ma waaye bàyyi naa mu sedd maire be ma ñaan waaye yow dossier ma dama ko tegoon nii ba mu ba mu set nga bàyyi xeesal bi nag bàyyil xeesal bi bàyyil xeesal ba ngay xeesal ak cap-cap sa dossier yëpp laa ya, yore woon bala bala mooduloo di doxaan mooduloo nga jóge ci mooduloo dal ci kan après ci nga dalee ci waali jóge ci Waly Ballago Seck dal ci kan Moustapha Diop moom mooy ministre di di finance jóge ci Moustapha Diop dal ci ki nga xam ni moom mooy euh, euh, jóge jóge jóge ci jóge ci Modou Lo jaar mu mu mu wutang wang la nga jóge fa dem ci Waly Ballago Seck mu wutang wang la nga jóge fa dem ci euh, Mamadou kii lu mu tudd Mamadou Mamadou Ngom Mamadou Ngom ñaa mu wutang wang la nga jóge ca jaay sa taat encore jóge fa jox sa bopp Moustapha Diop moom sax <laughs> liñ ma nee na jaar jàll la rek nee jaar jàll nga mooy vraiment doxaan moom nekku nekku ci woon ak yow jaar jàll la rek dafa jaar rek tracé semaine comme comme ñëpp dañu war a ñam mu ñam am jox lu mu fa joxe dem yoonam nee na moom suqit muqit rek la ci am donc voilà waaw donc voilà <laughs> ñu bàyyi noonu ñu bàyyi noonu ñu bàyyi noonu d'accord d'accord d'accord ay ayca euh, yaa awatam même chose <laughs> mais nañ bàyyi noonu comme maire bi ñaana na ma neen mu dimbale ko rek jàpp ci euh, ñu jàpp ci xam nga ay ay saanda yoo xam dañuy xeesaliser salte seen ndarpayen xam nga dagg-dagg yi day ni innamaa jobal xam nga xool xëm la ay ndarpaan yoo xam ni dagg-dagg yi day ni innamaa jobal xool xëm xool xëm booy ximmiliku di daw dooy ximmiliku di daw seen kanam gi rek lañ xeesal dafa cippi cippi mais ci biir la ilaha illallah moo gën a xóot laa la wax kayaar offshore xam ngeen kayaar offshore seen dagg-dagg yi seen ndarpaan yi ñoo gën a xóot kayaar offshore <laughs> lépp fa jaar façon jon bu ne lañ encaissé joo bu na lañ ñu salté mais kanam gi nag xeesal xonk ñu toog posé toog ma ci gis ki la ma neex ki la ma neex xam nga rek Sénégal daal bëri caga caga yu góor caga yu jigéen xam nga seen yaay yi liggéeyuñu doonuñu ay référence seen biir kër yi donc bàyyi seen doom yi nekk ay doomi xaram génn ci mbedd yi di xool ci tele yi di miir asosal <laughs> dafa neex wuy sama kii dama ko faa fekk ay caga lañ fa doomu xaram lañ faa loolu mooy Sénégal daal imbécile ñoom ñoom daal ñoom ñoom ñoom nekkal doomi xaram ñoom da nga leen neex ñoom dooma ñoom bëgguñu ko baax nekkal doomi xaram rek moo doomi xaram moom dañ lay bëgg lool faale ko faa oh seen yaay yi liggéeyuñu <laughs> malheureusement ci ñoom la ñuy mujj ñoom bu ñu fa nekk nag <laughs> voilà kon nañ nañ leen baal waaye daa xam naa seen darpaan ni moom comme Kayar offshore en profondeur immesurable waaw sol yu xat nag seen dagg-dagg yi marqué si fiseau yi comme tampon wu tànku gileem sol ay fii kii seen dagg-dagg yi marqué fii lay tàmbalee dagg-dagg bu tàmbalee fii ba ci ginnaaw ba ci taati fii mu marqué ci seen fuseau yi nag comme tampon tànk gilem laa la wax <laughs> voilà ña nga daal ñoom ñiy jaay seen seen bopp au plus offrant yeneen jigéen yi nga xam ne amuñu ndey amuñu baay baaxuñu topp naw ñooñu bëgg ñooñu faa ñooñu moo tax it yéen yéen di xoole xaw ma koo leen di wax safara waaye yéen koo leen ku leen jiitu safara xam ni doo leen ñëw bàyyi bàyyi ñi ngay wax yow yow yàlla dafa tere lii càgga bu bon nga càgga bu bon ba nga joxe sa ndar pan kenn xamul kañ la yow di koo conseillé mu dégg la ndeyam baaxut <laughs> ba nga waree a téye sa bopp téyoo sa bopp càgga bu xasawu xunn yow bu dee góor càgga nga bu dee góor jigéen càgga nga yow nitu safara ko bon ngi ci ñu bon da pare ne yée da ngay conseillé non ku yàq der moom kuy <laughs> ngay càgga ngay càgga boo fekkoon fu ñuy yàqee der darul ngay tiit parce que yow sa der mënuñu yàqu mais lu tax nga boo foo gisee ñuy wax nit rek nga tiit parce que da xam ni yow ci yow la ñëw après ndax yow ak yem képp si say neuf sàmbaay bàcc boo juutal mënu roog beneen ba <laughs> defaru leen ngeen ne da ngeen bañ ngeen ne doo leen defaru